Le candidat n'est pas inéligible, euh, le, dit, certains patriotes, le dit qu'il laisse tranquille pour qu'il parte l'élection. mais euh, d'abord balaa ñuy wax euh, confrontation il faut rappeler que l'élection législative est... et que l'élection législative yi une élection député oui. député yi waaye dafa nous ñu am d' abord ci élection législative yi dafa am lu ñuy wax list proportionnelle ak liste majoritaire maanaam list majoritaire mooy yi am sur les départements nga xamante ni raw gàddu lay doon ak yi nga xam ni mooy list proportionnelle mooy au niveau national majoritaire bi boo ëppalee benn baat ci département yaa jël li mu député yëpp maintenant proportionnel dañuy dajale li ngeen am ci département yi ñu xayma ñaata vote moo am ñu ne benn député bu nekk c'est le quotient électoral ci la naté au niveau national maintenant euh, c'est laaj bu am solo la parce que Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ñom ñaar danaka dañ doon wotante doomu nay mm-hmm. ci digënté bi beaucoup de choses se sont passées ba andatuñu ci walu politique Ousmane Sonko nek premier ministre le chef de gouvernement le leader passif. Barthélemy Diaz bien que nekul leader taxaw parce que Khalifa Sall le leader il euh, tay entre temps. élection bi dina tax ñu mën a déterminer mais mënuma ko jàppee confrontation parce que pour man euh, pour ñu mënoon wax ndax confrontation la euh, il faut que ñoom ñaar ñu bokk. éclaircir débat bi nga xamante ni doon nañ ko posé muy Barthélémy Diaz mooy maire de Dakar man dama jàppoon ni. Barthélémy Diaz n'est que maire de Dakar C'est grâce à l'appui, au soutien de Ousmane Sonko dans le cadre de li de mon ni la la coalition a eu Wi. Euh, ci wàllu coalition boobu la Diaz Dias que maire de Dakar. maintenant mon ak ay ñoñam doon nañ Ousmane Sonko taxul ñoom ñu maire donc aujourd'hui euh, sur le plan politique vous faites comme Barthélémy Dias vous dites « liste de Dakar su Boba, su gagné Dakar ñu né ah, Bart Barth kat moo Dakar mais c'est comme si Bart a fui la bataille de Dakar parce que Bart n'est pas sur la liste départementale de Dakar il est sur la mm. liste nationale comprenez. Mm. donc su gars voilà les li que nous ñu comprendre Moi, tax sànq ci la liste départementale am liste nationale nationale moi proportionnel départemental moi ci département bi les comme Barth maire de Dakar légitimement pour wane ni Mon mon mom Dakar wala amna na Dakar su jité woon liste département su élection yi jàllee ci lañuy xam ndax Bart mo upp doole à Dakar ndax Bart mom bi mi nek maire dooleem kese la démé maire mais Bart jité jiitewul liste départementale donc kon est-ce que fiirul confrontation directe au niveau départemental. Maintenant, autre lecture sur le plan national, le fait que nous beaucoup sur le plan national, ce undumoué, nous a préparé en conséquence. Par exemple, pour l'élection présidentielle, il y a Khalifa est le leader, mais montre Khalifa jiite le liste bi. Mhm. ñu jël ce que c'est le liste parce que le fàtte la constitution au Sénégal a une limite d'âge pour pour présidentielle donc hmm. vu que Khalifa en 2029 il une limite d'âge les pour pousse Bart nous sur la cour des grands nous tax ñu au niveau national donc ce qui fait que pour moi la confrontation à Dakar elle va pas avoir lieu. Hmm. maintenant il faut nous xool euh, parce que c'est pas que Bart parce que au niveau national il y a Barthélémy les médias beaucoup listes, liste mon ak waa PUR. waa gëm sa bopp Thierno Bocoum Pape Djibril Fall kon lañ fay dajale yëpp du doon dayo Bart mais dayo plus plus plus plus plus yooyu ak Anta Babacar Ngom voilà. d' accord mais tey ñu ngi naan juridiquement euh, warutoon bokk. comme mhm. Ousmane Sonko parce que ñoom ñaar yëpp waaw mais ñoom ñaar ñëpp euh, dañu am euh, condamnation ci wàllu yoon ça c' est c' est évidence mais bokkuñu ay catégorie mën naa commencer ci Barthélémy Diaz comme tu me la dit, alors il se trouve que. Mhm. c'est regrettable parce que Barthélémy Diaz a euh, Ndiaga bi ëpp je rappelle que un Ndiaga en commencé 2011. Barthélémy Diaz nguuru Wade Japon comme mu ngi ànd ak Macky Sall Macky Sall nous mu un ba Macky Sall dossier sur la table mais nous avons une condamnation définitive ça veut dire nous am une juridiction première instance su fait que que, dans le nga am nga sañ nga interjeté appel c'est-à-dire pour nous acte. Mm-hmm. bu ñu nous foofu satisfaction ou une partie satisfaction nous avons li pourvoi en cassation donc le mot cassation est cassé soit on casse le verdict ou on confirme le verdict le régime bu bees le premier jour à travers le ministre de la justice a nañu aussi possibilité de battre l'Assemblée nationale pour le poste ils ne l'ont pas fait donc par conséquent looloo tax conserver son poste de député y a une hypothèse am parce que bu faites dañuy analyser une analyse scientifique quelles sont les possibilités ñaar moo mën a Barthélemy Diaz élection bi ñu jëm seen élection anticipée moy nekkul élection bo xam dafa jaar yon ñu wajal ko parce que délai dañ ko dindi donc lepp lu nekkoon rigueur dañ ko dindi dindi li jëm ci walu parrainage motax amul révision des listes bu fekkoon révision des listes amna yow fi ngay voté nga bëgg tuxu mën nga am possibilité nga changer ko révision des listes électorales su amé ki nga xam ne dañ ko tëjoon ci lañ koy génnee ci ab liste. donc que mën nañ jàpp ñi voté woon ci présidentielle yi kese ñoom ñooy voté très bien donc ça veut dire que on considère que mu ngi woon kon mu ngi ci biir liste électorale le fait qu'il vote aux élections présidentielles, ça veut dire qu'il était dans les listes électorales. Donc, comme il n'y a pas eu de révision sur les listes électorales, il est encore dans les listes électorales. Donc, dès l'instant que mon, il est un Donc, dès l'instant que mon, il est un il est un électeur mandataire bu nek manam candidat bu nek am lu mandataire ce mandataire amna na sañ mu xol benen candidat mu japp ni candidat bi warul bokku mu def yoolee manam mu bind recours ci conseil constitutionnel lol nak lila ko may moy article 184 LO 184 du code électoral mo ne ginnaaw bu ministre de l'intérieur intérieur ab dogal fësal liste candidat yi mhm. yenen mandataire 24 heures après ci 24 heures il y a sañ conseil constitutionnel conseil constitutionnel est dans les 72 heures que bi donc ci phase contentieuse Après le après conseil constitutionnel il y a la liste définitive maintenant Deuxième hypothèse, c'est le Conseil constitutionnel maintenant qui va statuer sur le cas de Barthélémy Diaz pour voir est-ce qu'il est éligible. Mm-hmm. Est-ce que sur la base de li ma wax ci code électoral bi ci fichier bi wala ñoom dañuy sukkandiku ci li nga code pénal parce qu'il a une condamnation définitive donc le sort de Barthélémy Diaz est lié au Conseil constitutionnel. merci donc ñi euh, nga xamante ne liste bi Macky Sall ñoo recours jëmale ko Barthélémy Diaz. Euh, non non du ah du ñoom. ñoom ñoom bi Macky Sall jiite dañu def recours contre Ousmane Sonko. ah wax nga dëgg ñoom Sonko la ñuy la ñuy voilà léegi Bart beneen beneen coalition ànd ànd liggéey ñoo def ñoom ñoo def recours. noo jàngatee ñaari recours yooyu ñu dugal. benn euh, nga xamante ne dugal na ko ci Ousmane Sonko te mu leer leen ni que Ousmane Sonko du du temps des élections présidentielles demoon na voté foofu ca Ziguinchor. oui xam nga léegi élection présidentielle Bart voté na. Il y a un recours maintenant c'est le conseil constitutionnel qui arbitrer pour Hol. maintenant situation Bart et ak situation Sonko du je 2011 condamné définitivement mais situation Sonko. situation et Sonko dafa vous a. la démonstration Je vais expliquer très bien les Sonko Sonko, il est éligible. Rien n'entache son éligibilité. Je m'explique. Moi, je parle que droit. Ousmane Sonko, il est condamné pour diffamation C'est une période nous sommes du candidats candidat élection présidentielle mais après tu diggante bi que élection présidentielle il y a un facteur qui fait gagner la loi d'amnistie. effectivement. dans la loi d'amnistie article premier la ne sont amnestie des faits correctionnels ou criminels liés à des manifestations politiques mm. ou des motivations politiques y compris celles qui ont été faites à travers des supports de communication. Je m'explique, nous sommes mm Nous sommes le 1er février 2021. Madame, le 1er février 2021. Le 25 février 2024. Les délit ou le crime, je sais que je yu jóge ci manifestation politique voilà ligne ñu def la motivation elle est politique donc dans def utiliser ay support de communication mm-hmm. Ousmane songo dañ ko diffamation diffamation bi mu support de communication parce que le ay caméra ko télé mm-hmm est-ce que une motivation politique oui amener une motivation politique parce que Bimko koy def da attaquer son adversaire politique Moi, quand il y a deux matérialités des faits il y a la motivation politique il y a l'utilisation des supports de communication donc ce qui fait que les ñu condamné Ousmane Sonko c'est nul et non advenu parce que la loi d'amnistie elle a effacé la condamnation mhm. moo réglé par l'amnistie parce que l'amnistie faire effacer mbir bi parfois nga dég ñu na la loi affaire privée non attendez. Sonko kenn mënatu ko top ci dara ci mëne ne. déggoo ma wax motax biñ défé amnistie bi voté na. Mm. té bi mëna na voté nañ voté mm. conformément à la loi article 184 du code électoral moo ne ginnaaw bi DG à travers le ministre de l'Intérieur, intérieur liste candidat bu nekk am nga sañ-sañ yabal sa mandataire bu amé lu muy clamé mu dem clamé ko ci conseil constitutionnel maintenant conseil constitutionnel xol da fay xol li nga xamanteni moy loi nga am en vigueur donc pour l'instant la loi d'amnistie est très claire et sans jambage elle dit que sont amnistiés des faits d'infraction criminelle ou correctionnelle donc les délits c'est correctionnel moi, xam loo c'est lié à des manifestations politiques la manifestation politique on a nga rey nit nga taal biis ak nga nangam nga sangam. wa illaa loo xam ni jubluwaay bi politique la donté dang ko encore def ci support de communication donc la diffamation ici de Ousmane Sonko vis-à-vis de Mbaye elle avait une motivation politique parce que c'est un leader politique qui attaque politiquement un adversaire politique en utilisant des supports de communication ce qui fait que c'est clair et sans jambal Ousmane Sonko est bel et bien éligible voilà d' accord yaakaar naa leer na ci biir loolu li waral élection législative yi nga xamante ne ci la ñuy jublu dañuy gis comme ni nga ko waxee euh, l' ex président de la république moom it dafa am euh, liste boo xamante ne moom moo nekk à la tet moom moo ko jiite euh, mu nekk retour boo xamante ne peut être mën nañ ne c'est inattendu ndax wax dëgg fa yàlla li ñu mës a xam ci li nga xam ne moom mooy njiitu réew yi mooy que ku xas pare li ngay def da ngay daal di dem bàyyi sa ki nga xamante ne moo la wuutu daal di doxal li nga xamante ne moom nga fi bàyyi ñu gis ni si mois Macky Sall mën nañu xaar li nga xam ne moom mooy retouram ndax moom moo jiite liste bi nga xamante ne moom mooy coalition bi nga xamante ne mooy taxaw wàllu Sénégal. waaw mais euh, d' abord du point de vue du droit rien n' empêche à Macky Sall d' être sur une liste waaye man bëgguma débat ci ay émotions. Mm. parce que da nga koo bëgg wala da nga koo contre. et quoi qu'on puisse dire mës na fi am. Ablaye mais le président Il a jógee ci ci présidence après il na fait une liste législative seulement il est de tradition républicaine au Sénégal on a remarqué que Senghor quand il a démissionné en 1981, dafa effacé aussi lépp li nga la vie politique sénégalaise il a démissionné de toutes les instances politiques du parti socialiste qu'il a dirigé plus de 20 ans Il a ko de jëm ci la politique parce que jàpp na ni moom bu ci ingérence après il est allé là en d'autres fonctions académie française le pouvoir en 2000 Abdou s'est complètement effacé de la vie publique et de la vie politique ba ça après la même organisation francophonie donc war la la question Seigneur, Senghor bi mu académie hmm. française la dem Abdou Diouf bim paré francophonie la dem Maxal, bim bi France ko embauché loolu beneen débat la. Hmm. donc. c'est important de le dire. très bien donc du point de vue juridique hmm. Macky Sall sénégalais la kenn mënul fexé ci wàllu loi nga ne ko doonee candidat bu fekkoon amuko DG du ko loi kon ci liste c'est du point de vue juridique maintenant du point de vue politique ñu analyser d'abord l'élection bi dafa enjeu, ay enjeux et puis man suis ci Macky Sall mhm. parce qu'en tant qu'observateur j'avais vu venir Macky Sall d'abord bi mu defee Amadou Ba son candidat joxu ko lépp maanaam dangaa jël jox ko xar bi waaye joxoo ko buum bi koy téye Macky dafa woote congrès pour nekk président APR si vous vous rappelez King Fahd Palace la ko avant élection présidentielle nekk président wu APR Ba nekk seen candidat donc Macky mbëbëtam ak bëgg bëgg troisième mandat boobu rêvam la c' parce qu'il a été dos au mur que nekkul candidat bii aussi beneen stratégie la ci Macky laal pour se protéger d' abord yaa ngi dégg ñu naan mën nañ ko topp du point de vue juridique mais pour ñu topp Macky Sall lenn lañ ko mën a toppee haute trahison par exemple une haute trahison nous devons définir mais haute trahison Macky kenn mënu ko àtte le tribunal simple pour ñu àtte ko haute cour de justice la installée. pour ñu installer haute cour de justice il faut ñu am trois cinquièmes des députés de l'Assemblée. c'est-à-dire sur les 165 députés il faut nga am 99 vingt députés pour nous installer. Macky il fait de la résistance politique pour y ait un nombre de députés pour banya. yat boobu bañ koo dal loolu benn la beneen jàngar bi mooy Macky Sall parteem dafa wàññeeku tey am na ko démissionné démb am na ko démissionné euh, nu mu tudd Abdoulaye Diouf Sarr démissionné na ancien ministre de la justice démissionné na euh, Macky avant muy teg Amadou Ba am na ñu génn ci parteem Aly Ngouille Ndiaye def na Mame booy Diao tey am na lu mu am Kolda base bi mu am donc Macky est déjà diminué le candidat que Macky Sall avait muy en l'occurrence même le petit frère de Macky Sall Aliou Sall n'est pas avec Macky Sall Tay Amadou Ba mais Amadou Ba li mu jël un APR la ko tibbee xanaa Madiambal la ci yox. comprenez donc déjà mu libéré ses alliés de Benno Bokk Yakar. donc c'est un APR affaibli donc Macky est venu pour mettre son image pour dire capitaliser loolu léegi nag la véritable question mooy Macky et sorti par la porte mais il veut passer par la fenêtre. c'est-à-dire. c'est-à-dire <laughs> dem na élection mu indi mbërëm ñu daan mbërëm yi mu waroon a def ñi ñeneen ñi defoon jàpp Mor Sagna Ambra mu ne néew day ñëw xeex sur le plan politique maanaam dafa wiiriwaat ginnaaw bi ñu ko génnee ci bunt bi mu wiiri bëgg a jaar ci palanteer bi def prox ndool donc législative bi mooy la fenêtre. Donc c'est plus risqué pour Macky Sall que, notre gouvernement. Oui, mais je veux dire, il, est sorti par la porte. Maintenant, il prend le risque d'entrer par la fenêtre. Est-ce qu'il pourra passer par la fenêtre Est-ce que parce que c'est un pari risqué parce que Macky Mounoufi nous sanctionne le régime moins de six mois. Parce que l'élection présidentielle 2019, Macky a obtenu 58%. nga dem présidentielle bi su sa camp ak sa candidat ak sa mboboor ak sa doole nga am 34 pour cent léegi 34 pour cent yi nga amoon Amadou Ba mi nga ngemboon dem na am na lu mu yóbbaale kon sa 34 yi wàññeeku na. léegi est-ce que si diggante bi sénégalais namm nañ fi namm boobu Macky saal du man maa koy wax élection yi ñoo lay woon ndax fi ñu ko teg mu nga fa daal euh, gunge Amadou Ba benn yoon ci campagne bi gisul sax mu wax benn discours boo xamante ne day jëmale ci faveur ki nga xamante ne moom mooy Amadou donc est ce que réellement Macky Sall àndoon na ak Amadou mi nga xam ne moom ngeen dugal le 24 mars. waaw loolu c' est un autre débat c' est un autre débat dans la mesure où euh, la preuve aujourd'hui Macky ak Amadou àndatuñu kon am na lu xew ci diggante ñoom ñaar ñoom ñoo ko mën a wax maintenant euh, ñi ci doon. wax c'est c'est alarmant et tey am na ñu ànd ak Amadou. Aliou ah bañ na ko ba yorul benn nombre tànk ci gouvernement bi. pendant yor na ko kay. Aliou nekkoon na caisse de dépôt de consignation. ah biñ ko kiiwee dafa génn foofu. lañ ko fa nommé. Aliou bu ko nit ñi xamee mu mën a dem géej waaye Macky de madame cest à fi ñu nekkoon moo nooy dama ne. Macky mënul woon nekk candidat constitution xeex naa ko fu ne wax naa ko fu nekk dafa leer wax naa ko ba wax ko ci pulaar xay gootu waa wadde doo ko buri mandat ji di di pawandir bi moom xamoon na ko déedéet na ko donc il a été dos au mur Macky jël Amadou Ba bi gënalu ko woon bi mu demee ba sës sës sës la jël Amadou Ba li olof naan ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw comprenez Les six mois après Amadou Ba s'est détaché Il na a une nouvelle responsabilité man dama jàpp ne jël responsabilité à courage politique débat mais ici dans l'analyse Macky est diminué politiquement maintenant vu tout ce qui s'est passé parce que man duma damay bëgg objectif Il un bilan bu mu am un négatif et un lu positif y a ce qu'on retient un bilan matériel et immatériel am na ay pont am na ay BRT am na ay tali waaye am na ay néew am na ay tëj ci kaso am na yeneen ak yeneen comprenez maintenant sénégalais ci juróom benn weer ñoom ñi ko joxoon 34 pour cent est-ce que loolu day yokk wala day wàññeeku gëw mu mu yokku d'autant plus que ca ñamu àndaloon ñu bëri feggoog ñoom ci kuréelam beddi nañ ko dem ci leneen léegi nag moom muy wut lu mu mottali ko léegi lan la mottali ko PDS la dem mottali ko mottali ko PDS bi mooy. PDS mi nga aussi japon na ci élection yi ah, ci régime fini fi nekk. fa laa ñëw fa laa ñëw euh, PDS si seen logique <coughs> pour man ñom nee nañ réel politique la man gawma réel politique bo xamné ne <laughs> méngoowul ak say conviction gawma réel politique bo xamné daf lay c'est-à-dire c'est-à-dire legal nga wàcc ba paré bu ko lekk. ah loolu bëri na waaw mais xam nga c' est même pas logique est ce que logique na pour yow. Euh, PDS moo nekk pouvoir daanu. Macky Sall structure tuddee ko créé déstructuré PDS complètement mm-hmm. jël doomu Ablaye Wade Ablaye Wade moo defal lépp Macky Macky jël doomam ñu condamné ko juróom benn weer tëj ko ci kaso bi ñetti at ak juróom benn weer génnee ko réew mi. ba léegi suy wax appel du def appel vidéo de vocal lay def comme far bu jar message vocal di def télétravail des gens se sont battus pour Karim Wade ñu tëj leen ci kaso bi va demander à Toussaint Manga ñaata weer lañ ko tëj Toussaint ñu ko ci Sonko rek de tëj nañ ko ci Karim ci ci ci ci ci affaire Karim Wade onze mois tëj ay Victor Sadio Diouf tëj ay Bara Gaye ak yeneen jeunes ils se battaient pour Karim Wade pour la libération mieux encore élection présidentielle jot 2019 ñu xañ leen Karim Wade DGE moo génne du am carte électeur Karim nekkul candidat PDS amul candidat doole PDS wàññeeku am ñu nekkoon PDS dem transhumé fekk Macky ñu demati élection présidentielle bi passé ñu ne leen Karim du nekkaat candidat encore kan moo leen ko teg du Macky Thierno Alassane Sall moo dugg non ma ne xoolal. ah déet Thierno Alassane Sall madame madame madame dama bëgg waxtaan bi neex. waaw loolu laa la wax comprendre baax li may wax. xam nga Karim génne bokkoon na ba pare. ma ne recours bee tax ma ne madame kan moo jël Karim li ngay wax nii yëpp soo ko tegalee. kan moo jël Karim tëj ko si kaso bi. Macky kan moo ko génnee réew mi. kan moo tax nekkul candidat 2019. Macky léegi yooyu yëpp soo ko dajalee. 2024 mhm. nekkul candidat aussi. Mhm. fi mu bëgg a wax mooy un parti bu demul ci élection. il est appelé à disparaître ba pare c'est même pas logique PDS ñoom ñoo toog. tu te rappelles Diomaye seeti Ablaye Wade ñu def photo. Mhm. Ablaye mënul décider à son âge. ñu ne ñoom dañoo porter plainte candidat wu Benno Bokk Yaakaar candidat wu Macky moo corrompre conseil constitutionnel du PDS ak waxoon wala fekk la fi. ñu ñëw kan lañ jàppale élection présidentielle. PDS. waaw kañ lañ jàppale. waaw Diomaye. waaw léegi yow nan nga jàppale nit élection présidentielle wëlbatiku élection législative nga dem ci ki nga fi jëlee est-ce que loolu yenu na maanaam kon sa veut dire que vous étiez de mèche léegi nag c'est indigeste. est-ce que amul ci diggante non du changement intérêt la. mais politique tout est mais mais loolu laa la bëggoon dafa am. intérêt ñoom lépp ci intérêt la ñuy dox. waaw moo tax ma bëgg xoola intérêt baax na trop. mais gis nga booy jaay mënoo toog nga tam nit dëmm ba pare nga xëy ànd ak moom di reer. mais tey boo waxee. est-ce que est-ce que dégg nga wala. boo waxee waxi tax tam dëmm tey euh, gis nañu Bassirou Diomaye fay seeti Wade du temps des élections présidentielles. alors euh, Sonko dafa toujours critiquer li nga xam ne moom mooy euh, système bi. moom mooy ñi fi nekkoon demoon na ba ne dañ leen war a fusiller donc euh, waa wàdd heure bi waroon na fekk ñu ngi koy ñaanal ak yooyu bu fekkoon bi Sonko bu góob bi parce que dafa ne woon nañ leen fusiller alors donc ñu gis ñu dem leen am ndimbal pour élection yi euh, jàll à leur faveur comme ni nga ko waxee c'est pas cohérent six mois changement am donc man question bi may posé wu tey est-ce que li ngay wax ni que euh, cohérence amul ne que Karim war na mën dara Macky Sall ba waratul ànd ak kon est-ce que Ousmane Sonko aussi était cohérent du temps bi muy ne du ànd ak li nga xamante le système. merci pour ta question mais c'est une question sur une question non encore élucidée zadi est-ce que ici le débat s'est posé on a parlé de. la def comparaison. oui non, léegi comparaison n'est pas raison après si tu veux on pourra discuter de ça léegi léegi une paree. mais comme dama nekkoon ci benn logique. Mm. parce que man. Si je sais que mon cœur est là, c'est Ablaye Wadala. Mais pour moi, c'est une trahison. Le PDS s'est trahit lui-même. Et ce n'est pas cohérent aussi. Le PDS a 50 ans, madame. Moi, tu as Doudou, il a Doudou, non Non, non, alors, Doudou, là. 31 juillet, il vit passé le PDS en 50 ans. Des gens sont morts pour le PDS. Des gens ont été emprisonnés pour le PDS. Des gens ont été blessés pour le PDS. Tout à l'heure, j'ai cité la liste de, mm. personnes qui ont été mises en prison à cause de PDS et de Karim Maintenant, Karim Ward se retourne pour, se donner paix, pied et mais liés à, à Macky Après tout ce qu'il a vécu. Est-ce est que tu comprends la profondeur de l'image que mm-hmm. PDS, mon tasse, Parce que tu as une liste jeune PDS yi ñu ngi jaar na lé yow Karim est-ce que mérité na héritage bu baayam Ablaye Wade. question très bien donc pour man le fait que PDS dem fekki APR moy sen arrêt de mort politique man fa la analyser madame bëgg politique ak bëgg sa intérêt bu mu la taxal nga jaay sa sa sa valeur pour man PDS label la mënon na demal bopam bu am ñaari député ba ñett mu xam ni fa la toll mais regarde biñu jëlé décision bobu amna ay député PDS yu ne ñoom bëgguñu ñu duggal leen ci liste bo xamni ñom ak wa APR koy bok donc c'est leur c'est leur choix maintenant choix politique ngay def daf lay déterminer si sa avenir politique aussi benen bi kuy ñaane sa ndono sa deewin ñaaw madame je suis désolé la générosité bi Ousmane Sonko am Karim na l'a pas xam nga la mooy générosité 2019 PDS dañ ne leen am candidat am ñeneen ñu ne dañoo bëgg a nekk candidat ñu dàq leen ci parti bi mais 2024 même situation posée Ousmane Sonko bi mu demee ba xam du nekk candidat gis na moromam mu jiital moromam boobu lolu moy de la générosité politique donc pour man c'est une mauvaise stratégie ils se sont do fekk garab guy daanu ba paré nga ñëw di ci langaamu nak soxna si wala PDS bi ñuy ànd ak Diomaye dañ bëggoon jox leen poste ministre wala député wala dañ ah, bëggoon un changement Wa légui nak man fofu la waxe. maintenant je ne suis pas dans les comparaisons parce que comparaison yi du exemple yi du jeex mu la nee nga ne Mimi Touré tay mu ngi ci Pastef Mame Boye Diao mu ngi Pastef mais man je te dis est-ce que c'est logique est-ce que ben wolof rek laa la laax nga tam nit dëmm tam ko dëmm après suba ngeen and tok di reerandoo qu'est-ce que ça signifie Ya, ngi moom loolu ñun ñoo ko def problème mais ñoom moom. non mais madame. comprendre naa li nga léegi léegi léegi ñun ñooy ñan. dama ni waaw léegi ñun ñooy ñan nga yow mun ko bañ. waaw léegi dama ne la ñun dama léegi ñun ñooy ñan. yow xam nga yow tey munoo maa tam dëmm ñu fekk ma si fekk la may reer ak xam nga yow personnellement yow doo ko nangu. Mm-hmm. mais politiciens yi bañu ñu ko. waaw léegi madame gis nañ fi ñuy tamante dëmm xëy di àndaat. madame madame xam nga man ci sama xalaat mën naa juum mën naa ni keneen xalaatee ne la du dëgg mm-hmm. wa PDS ñu ko def am na neneen nuñ ko xalaatee ba argumenté ko am na ñu bokk ci biir PDS te ci mm-hmm. mais comme da ma laaj cette question de manière précise moi je crois que c'est une erreur fatale au PDS sur le plan politique parce que la politique c'est du marketing politique par rapport à un contexte bien donné les choix yi ngay jël fay déterminer sa avenir politique d'accord léegi que après sénégalais nous jugé est-ce que marchandise Macky plus Karim <laughs> est-ce que day lamb est-ce que est-ce que dafa des lois est-ce que dina jar sénégalais bi est jënd xam dama la mhm. élection là, la ku nekk la sa table marchandise dafa am lu préférence c'est nii ngay demee marché le consommateur am na lu mu préfère l'électeur moom mooy choisir est-ce que maintenant les sénégalais vont dire que waaw on va donner retour Karim Wade plus Macky est-ce que loolu xel nangu na ko wala xel nangu ko loolu nag sénégalais bi tànn si son droit man nag boo ma laajee ci sama xalaat dama ne. jàppuma ni lu yenu maanaa la pour man. PDS waroon na mën a demal boppam même bu am benn wala ñaar parce que am na pas yoo xam ne ba keroog. il yow mi di mboq mi lañ lay wax léegi nak fas bi su lekke mboq mi léegi la mo fay des. en parlant de PDS xamnañ ni euh, Touba tout le temps ñoo fay gagné ndax euh, lool mom euh, li ñu li ñu gis la ci histoire ah, ci concernant des élections kon est-ce que tay du risque au niveau du du nouveau régime pour pour pour sen électorat fofu ci Touba. Ah, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy supposé parce que le 17 jotagul. waaw comme si une supposition. parce que 100 pour lañ fa amoon bi passé. Kay lañ fa am 100 Bi passé yow fo nek yow. non tout Touba bokk na ci ñi. la moy 100 xam nga. lu si Manam bo gisee ma la 100 tout Touba la plupart. quand ñoom ñoo fa gagné. ou 100 madame. déggoo li ma la wax. non reformule ta question. dama ni. -hmm. Touba. Mhm. bokk na ci li fal jomay. waaw ah. am na doole. ci li fal Diomaye loolu kenn mënu ko werante voilà légui Touba dañu mësa wax ni Wàddaa ko moom te bu ñu waxee Wàdda doom ji Karim kon est-ce que tay du risque le fait que euh, Wàdda war a ñëwaat euh, dem élection ànd ak ki nga xamné mom moy Macky Sall Macky Sall moom xam nga Touba moom duñ ko yaakaar. waaw mais mosu faa gañe moom waaw mais xam nga les choses ont changé madame. les choses ont changé euh, élection lu dynamique là entre temps y a beaucoup d'eau qui qui qui ont coulé il y a beaucoup de facteurs yu tax mënoo avancer moo tax bi nga waxee 100 pour cent xoolaa la 100 pour cent kenn mënu ko am ci élection. c'est une façon de parler ça dépend de ñu ko comprendre. oui mais même si c'est une façon de parler ñun li ñuy li ñuy joxe dafay am lu relatif comprenez parce que élection 100 pour cent Poutine sax na élection. non Cheikh Oumar c'est parce que bo xolé tay buñu waxé les 54 Séné les 54 ñoo fal Diomaye dañuy naan Sénégal yépp a fal Diomaye te am na ñoo xam voté wu ñi voté wu ñoo gëna bëri mais manam pour rafetal dañuy naan 54 dañuy respecter seen choix ba dañuy naan la majorité des Sénégalais ont choisi jomay alors que tey boo demoon ci biir xeyna majorité sax jomay amuko li ngay wax du benn c'est juste pour te faire comprendre question bi ma posé par rapport à 100% mais dindi 100% ba pare yow da nga koy dindi. yow da lay déranger. non déranger wu ma c'est-à-dire. non non non du déranger. wa mais les comme amul buñ ko wax mais non attends. mais amul kon buñ ko wax. mais majorité moo tax wax. madame non non attends li ngay wax da ngay da ngay jaawale ñaar yu bokul xam nga ñaar lan moom bokkul dafa am lu ñuy wax le corps électoral. au Sénégal nous sommes 18 millions. oui. ñi inscrire ci fichier bi. Mm. parce que niñ ko défé ko am carte.

loolu beneen débat mais quand xam naa fi nga bëgg a wax da ma bëgg a wax ni maanaam Mbàkke Touba fiefu PDS la woon bu njëkk ba élection yi passé législative yi passé kan moo ko gagné présidentielle Jomaay moo ko gagné avant élection yooyu dañu def liste euh, Cheikh Thioro Mbacke ci liste départementale la duggee mais boobu dañ une intercoalition tu as raison de poser cette question est-ce que d'où risque c'est un risque politique même je ne parle même pas de Touba parce que Macky Sall le fait que moom mu bëgg appuyer wu sur si si waa PDS bëgg na moom li ko Amadou Ba xañ te yóbbaale ko moom mu mun ko remplacer ak waa PDS. Mm-hmm. waa PDS dañ doon bañ ñom suñu démé ñom cundum kessé peut-être li am du bëri ñu ne nañu roofu ci biir Macky Sall pour mën négocier ay poste député vous comprenez Ça, c'est c'est dans l'ordre normal des choses parce que les coalitions politiques et des coalitions électorales. maintenant le PDS gisul woon peut-être si c'est compagnonnage ak Pastef ñu dem xool fan la seen intérêt nekk les nag intérêt boobu moo leen nar maintenant dama la bëgg que dans cette dynamique munoo contre contre Macky Sall bané, ne amul ñu ko bëgg. mëno ko contre contre contre bané amul ay zone yoo xamante zone yoo xamante ni na ni wala sur le plan politique mon moo fa gagné l'élection élections présidentielle passées. est-ce que entre temps pasteur développé na fa am fa est-ce que entre temps euh, am élan de sympathie bu koy changé ça on pourra le savoir que au sortir des élections au 17 novembre mais par contre pour moi, la politique du fixe elle est dynamique et les choses ont changé Tu as dit gis opposition a am une campagne C'est Cheikh Omar Diagne pour jaxase affaire bi pour si fibre donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer maintenant l'enjeu de l'élection la question moi euh, à laquelle je m'attendais c'est aux élections présidentielles Ousmane Sonko n'était pas candidat aux élections présidentielles Macky Sall n'était pas candidat cette fois-ci, on va avoir une élection où Macky Sall sera candidat, où Ousmane Sonko sera candidat. Donc le combat qu'on n'avait pas eu aux élections présidentielles, c'est ce combat-là qui va se dessiner. Ça, c'est décisif. Donc, Macky Sall daa ngemboon meureum muy Amadou Ba mu indi ko ci lamb ji Ousmane Sonko ngem meureum muy jomay mu indi ko ci lamb ji mbëru Sonko da mbëru Macky legi fim mu toll nii jàmmaarloo bi ak jakarlo bi bi ni Macky Sall ak Ousmane Sonko très bien donc donc donc donc moy enjeu bi léegi enjeu bi moy léegi nak enjeu bi moy ñi dañ leena fal ñu bëgg doxal sen projet bëgg am sen peex ba luñu bëgg reud reud ko ñu soxla majorité majorité égale nombre de députés divisé par 1 plus 1. Est-ce que vous comprenez Donc pour avoir la majorité, ils vont se battre pour avoir cette majorité pour pouvoir euh, mettre en œuvre leur politique, leur programme, leur projet. Ils veulent avoir le nombre de députés pour que si nous pour le résister. Est-ce que nous avons une majorité réellement Est-ce que nous avons une majorité réellement ah, D'après Ousmane Sonko. Un régime n'a pas besoin de majorité pour bien gouverner. Ben, je ne suis pas d'accord avec Ousmane Sonko. Malheureusement, il avait dit ça. Ouais, les... Mais d'accord, monsieur Abou. Ouais, euh, cest rare. je vais vous dire, je vais Ousmane Sonko, je vais vous dire, Je waxuma yow Sonko dama ne la. mais Sonko moo bëgg majorité Sonko mooy Diomaye waaw wala déet non waaw wala n'a pas a koy non? noonu. Euh, man waxuma ko rek. sénégalais yi koy wax ñoom ñi leen fal lool lañ demee campagne c'est pour waxtaan bi neex il faut ñu no dama da nga ñii dañuy xeex pour am majorité pour mën a doxal seen projet ma ne la Sonko dafa ni woon ñoom soxlawuñu majorité pour doxal waaw waaw loolu laa la wax man su dama ko cabaxal rek yow rek bu la neexee bu ci débat mën nga continuer ci lancer bi waaw mais cest xam nga dama nekk si si si analyse manam ci ci série bu leer nañ man maanaam li ma analyser day leer nañ comme ndoxu naan. ah ma li ma wax dama dama am fuma ma journaliste que politique. motax tout à l'heure quand tu m'as dit 100 man le 100 mënul am ci élection motax fi dama ne la risque le parce que tout simplement APR ginnaaw Macky Sall ya rien Macky Sall nu mu mel am na lu mu am légui élection bi ma la nekkoon ci enjeu bi ma nekk man je te parlais de l'enjeu. je t'ai dit que pour top top Macky Sall il faut une haute cour de justice est-ce que tu mm-hmm. la haute cour de justice est composée de trois cinquièmes de l'effectif de l'assemblée Il y députés ça veut dire Macky pour que nous 99 députés. députés ndax buñ ko que ko avons nous secondo partem dafay tas te Macky démissionné wul APR ça veut dire que day waajal boppam parce que élection présidentielle yi di ñëw bu yaboon nañ ko sóoraale parce que troisième mandat c'est son rêve de gosse beneen bi mu dem wuti alliance politique et électorale ak une partie du PDS pour gouverner amul kuy toog ci àdduna yore gouvernement ne soxlawoo majorité amul Mhm, d'accord parce que bon amulee majorité. les majorité, nous ñu nous la preuve les filles, nous ñëw le conseil économique et social au conseil d'école territoriale. territoriales. il n'avait pas la majorité la majorité est de l'opposition l'opposition a rejeté et mu donc pour gouverner Abdouf disait une majorité elle sert à quelque chose vous comprenez maintenant.